jërëjëf jërëjëf. Mbaye. nee na bu yàlla maye doom buy fàttaliku ay néew di doole. mu leen di dimbali. te nee na seen maam Cheikh Umar loolu rek la bëgg. nee na ci lislaam rek lay dox ak lépp luy dimbali lislaam ak lépp luy dimbali lislaam nee na bu yàlla maye doom jooju war ngaa sant yàlla sant ko. Eh, nee te lii mu def nii. nee na umpale wu ko ci dara. depuis bi mu ko commencé gul. wax na ko ci bëgg-bëggam. mu ñaan mu ñaan ko na ko ñaanal ndax yàlla sottal loolu yëpp nee na depuis boobu mu ngi mu ngi mu ñaan ba mu ba tey lépp yemb alhamdulillah ba mu wax ko eh, matériel yëpp ñëw nañ Dakar nee na mu wax ko ci yow tamit sa taxawaay ni ni nga ci taxawee eh, nee na ak ni nga ci defee yëpp ha allah nee na ba yàlla indi lépp te dara manqué wu ci fof e na lépp yàlla ak sa taxawaay yow itam nee na ndax tam boo deful woon loolu ne ko manqué mën na am leneen am lu ci manqué fekk du àgg lépp lépp Louga e e waaye sa góor góorlu ak sa njub ak sa taxawaay ak sa maandu sa maandu moom moo tax lii yëpp am nee na bu dul woon loolu senegal lu mel ni bëriwu fi am fekk amul luñ ci dindiwul waaw fekk matériel bi dana am leneen luñ ci dindi fekk du egsi lépp waaye loolu egsi euh, amul ci Sénégal waaye loolu sa taxaw ak sa góorgóorlu ak dimbali waa Louga nee na loolu moom moo waral lii yëpp nee na ni mu jógee France noonu la egsee fi alhamdulillah dara dindi wuñ ci manqué wul dara nee na doom ji jëf waaye yow tamit jërëjëf alhamdulillah nee na ndax sa taxawaay moo baaxal lii lépp ndax bu ko baaxalul woon ndax kenn du gis bu boobaa moom li mu indi lii waaye nee na jërëjëf jërëjëf alhamdulillah masya allah directeur di la jël suñu nuyo di tek ci sa loxo kon nga jotali ñu ko waa Louga ak wa hôpital yi di leen sant na bu baax di leen ñaanal yalla yéen nit naaj bi tang na ñu wo leen heure bi rek ngeen ñew ci ay kilifa bay seen itte loolu tam lu jafe kon nak yeen ñu ngi leen naan jëre leen jëf jëre ngeen jëf ki mom suñu dom la suñu dañuy sant yàlla rek di ko ko sant la di sunu suñu waajur bii toog ndax lépp lu nu mën rek moom la di ko ñaanal yàlla nag mu yàgg fi lool te wér moom njaboot gépp di ko dale ci njaboot gu góor gi ba ci njaboot gu jigéen ku lim nag da nga juum waaye ñu ngi sant ñëpp rek di ñaanal yàlla tamit moom mii jigéen ba am xelu def lii ah yàlla moo am pay daal yàlla na ko yàlla fay ci barke yonent bi di ko bàyyeeg maamam nag ndax lii dana joti ay bakkar ndax am na ay miskin yoo xam ne am seen loxo jotu seen gannaaw mu fas yéene def lii ak fa mu ko jële ak xalaat bi ko indi lii kon nag lii daal dañ koy bàyyi ak yàlla ak maamam rek yal na ko yàlla fay na ko yàlla yokk ba mu yëg ndax àdduna bépp la ko defal du kër gi rek du bis bi rek du moom rek àdduna bépp la ko defal kon nag yéene bi mu ci am yal na weesu suñu njort ci kattanu yàlla yàlla nag bàyyil nu fi suñu way jur bi tam encore ba ñu di ko weer di ko weer ci darajay yonent bi sallallahu alayhi jërë ngeen jëf maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah biñ fi dajalé moy dañuy euh, réceptionner ben conteneur bo xamné ne euh, li ci nek lu am solo la ci hôpital bi ndax amna ben ambulance boo xam ne dafa ànd ak équipement am am na équipement amna ay lal amna ay couveuse amna ay matériel réanimation amna ay consommables yu jëm ci service médicaux yi conteneur bobu nak mu ngi joggé France hein euh, soxna Aminata Tall moom foofu la nekk moo ñu ko toppatool mu jaare ko ci ONG Horizon Sahel vraiment mu def euh, kéemtalaay kàttanam ba matériel bi yëpp ñu jot ci euh, li ci war ci formalité d'abord en France ba fii mu taxaw ci ba tey jii conteneur bi agsi donc dañ ci sant yàlla vraiment di ko sant moom particulièrement ci effort yooyu yëpp nga xam ni daj na ko ci euh, ndax c'était pas facile négociation la ak euh, ONG Horizon Sahel vraiment taxawayam mat seuk ba mu décrocher ambulance bi décrocher yenen équipement amna yenen yo xamni sax waroon na ñew waye dafa dafa xajul ci conteneur bi ñu bëgg ko fomm def ko ci yenen conteneur inshallah donc vraiment ñu ngi leen di sérel ni euh, suñu suñu cant doyuñu ah pour mom bëgg hôpital bi yëpp and ak ñun santal sant ko Eh, gannaaw ba ñu sant yàlla ndax gannaaw yàlla moom moo tax lii lii ak ba fii li mu wax ni noonu la demee ndax eh, fan yi ci gannaaw weer yi ci gannaaw lay wax hôpital bi ñàkk na benn ambulance boo xam ne dafa defoon choc ci yoonu Kébémer bi nga xam ne boobu ak léegi ñu ngi soox ak li fi des ci ambulance yi donc tey jii soxla bu jàmp la woon ci hôpital bi pour mu amaat beneen ambulance donc tey jii mel na ni soxna si ñu indil ambulance réglé na problème boobu loolu du xaaral maa ngi ñëw ci saa si lay lay mën lañ koy mën a utiliser yeneen yi nga xam ni moom moo ànd ak bi euh, muy ay lal muy ay équipement de réanimation muy ay couveuse pour ku xam euh, tey jii soxla bi ñu am ci wàllu couveuse donc tey jii mën naa wax ne ci saa si euh, day utile dañ dañ koy jëfandikoo ci saa si ci service yi kon loolu loolu lu luy yëkkati plateau technique bi ci saasi si la merci. ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaw man moom euh, damay gërëm ñëpp rek di sant ñëpp euh, li directeur wax kenn mënu ci teg dara wax na lépp te ginnaaw yàlla ak yonent bi aussi euh, li na wax bu dul woon moom yëf yi du agsi fii ci pas-pasam ak parlo ak farloom lépp lu ñu soxla suba ba jant soo du noppalu du kii lu dul mu yónnee ko donc loolu tamit ci bëgg sa réew la ci bëgg liggéeyam la donc moom dañ koy gërëm di ko ñaanal aussi Euh, yalla parce que li ndamam la mom moko mom bu fekkone ni dañ dama ko woo ne ko lii soxla naa lii wala li muy yéexal lo lo bëgg-bëgg sa réew bo amul ku la épaulé bu yagge da ngay da ngay da ngay sonn mais loolu lepp mo fekk ko si taxaw na si bu baax lepp mom la machallah euh, Horizon Sahel euh, ONG Horizon Sahel basé en France ñom nak ñu ngi taxawal liggéey yu am solo. Euh, ci dimbali hôpitaux Sénégal yi di dimbali hôpitaux euh, Sénégal yi ak écoles yi euh, ñoom côté vraiment dañ góorgóorlu bu baax ay boo leen duñu sax ni ay jeunes lañu ay mag lañu yi dañu retraité dañu donc ñu focaliser seen force xam de yàgg ñëw Sénégal xam problème Sénégal Euh, ñu ne lii il faut ñu taxawal ko pour dimbali Sénégal loolu tamit euh, dañ leen koy sant di leen ko gërëmee le président Daniel euh, moo nga fa ak vice présidente bi surtout Maïté ñu ngi góor góorlu bu baax a baax a baax pour def liggéey bu am solo pour Sénégal vraiment génn ci problème difficulté sanitaire yi ñu nekk kon nag dañ leen di gërëm di leen sant. waaw xam nga nit ki moom li nga nàmp rek ngay gàll. Hmm. Euh, ndaxte ku xam Cheikh Al Hadj Omar Foutiou radiallahu taala anhu euh, ñu jóge ci loolu ñu ne Thierno Bachir Mountaga mooy sa mooy sa wayjur bu góor kooku boo taxawul ci lu mel nii vraiment euh, tooñ nga te waa Louga nag moom wax dëgg yàlla Thierno Bachir ni ko yàgg a waxee rek moom amul lu dul Louga Louga la ñu won Louga la ñu bëggloo Louga la ñu taxawloo kon nag ñun ginnaw yalla ak yonent bi tamit amuñu luddul mom ah lum ñu lo lum ñu lo ñun tamit ci lor rek lañu dox donc ci tankam rek lañu ñu nekk ci ndigalam lañu ñu wéy ah, ci bëgg-bëggam tamit lañu ñu ndax te li tay def ci contane parce que mom ku ñëw si moom dara kenn wu leen ku ñëw si moom leen man gannaaw yalla ak yonent bi luga la am yow mën nga sédé lool kon nak buñu taxawé tay di di di di lu ci luga ah war la defe naa war la c'est un devoir nañu yaakaar bu baax ndaxte yàgg naa dox ci social yagna naa dox ci di dimbal euh, du ma sax li vraiment <laughs> bugguma ko sax mais euh, yon yamul ci ben li Li, commencement la rek incha motax ngeen war a ki motax mu ngeen war a ki motax sank ba légui ma ngi répété du sonno, moy directeur bi. moo tax ñu war ko gërëmaat delloo ko njukkal ndaxte bu dul woon moom ci taxawaayam ni ma ko waxee ak par par pasasam lii dina dina dina agsi peut-être mais du mel comme ni mu mel nii donc lépp moom la moom directeur moom moom docteur Amadou Diouf moom moo def lépp parce que papier yi lépp lu ñu soxla day taxaw day woote day lii day yónnee donc moom moo moom moom moo moom moo lijjanti lépp waaw Nous, ñëpp xam nañ Sénégal pour nga am fi indi fi yu c'est pas évident c'est pas évident du tout mais nous defal nañu sutura ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, ñaanu ak kon dañ koy ñaanal aussi gën ko bëgg Louga vraiment li mu li mu mu mm. médecine euh, du métier vocation là moom daf ko wone daf koy dund euh, li ma jokkal jokkalanteeg moom xam naa ni moom daf ko dafa bëgg loolu ci xolam te te do te loolu euh, kuy def métier bi yëpp war nga xam loolu bu fekkee ni métier rek nga ko jàppee euh, doo dem mais moom dafa bëgg loolu kon nag dañ koy ñaanal yàlla gën ko dëgëral yokk guddal fanam may ko mébét bi mu am ci hôpital bi yàlla defal ko ko en français. dëgg la euh, surtout jamono ji ñu nekk ci walu euh, walu circulation homme et bien dafa jafé parce que Covid la ñu nekk donc euh, bari na ay ay gàllankoor ci ci wàllu kayit waaye un ñun hôpital public lañu donc on fait partie du ministère de la santé donc dañuy sant ministère de la santé parce que chaque fois que lu un am dañuy bind ministère ministère bi pour demander exonération parce que li ci gën 10, c'est les frais de douane mais si le ministère de la santé ñoom dañ koy bu ko accepté ba ministère des finances Le ministère des finances fait def exonération totale. c'est-à-dire que le matériel bi hôpital franc de frais de douane Ce li nga xam fait hôpital daf koy c'est des frais de transit te loolu taxul am donc mais il faut que nous, nous souligner loolu pour remercier le ministère de la santé sant leen sant itam ministère des des finances waaye ci ginnaaw laata loolu di am lii wolof di wax balaa nga naan naam ne fa tey jii bu bu bu oto amuloon ambulance amuloon matériel amuloon kon conteneur du ñëw donc soxna si fa mu nekk ci France man euh, mën naa ci wax parce que dañu jokkoo au téléphone ci saa yu procédure fa mu toll dañu ci jokkoo téléphone donc man xam naa li mu daj pour jot ci ambulance parce que yombuloon bu bu bu sàgganoon touti wala wala wala mu bañ mu bañ ci sonn touti rek kon ambulance fenen lay dem lolou itam il faut nit ñi xam ko donc daf ci taxaw taxawaay bu mat seuk taxawaay bu dëgër ba tay ji ambulance bi agsi bu fi kon vraiment ak yeneen yi mu andal te te li ma leen wax léegi mooy matal bi yëpp xajuloon ci conteneur bi am na tey jii loo xam ni amoon na ko pour mu war a ñëw mais dañ koy denc ba beneen conteneur incha allah kon loolu itam day day mat day mat seere pour ñu sant ñu sant lañu ko ah. mais am na lu ma ci bëggoon dolli loo xam ni peut-être ci beneen régistre la parce que itam lii li mu feeñal man de jàngat bi ma ci jëlee mooy am kilifa rek moo am solo waaw ah, ni ko sëñ Bay Jaxate di waxee bu boo amee kilifa am nga solo boo amul kilifa amoo solo ndax bi bi bi muy tàmbali lii def ci waxtaan ak Euh, sëriñ bi Thierno Bachir dégg ngeen léegi sëriñ bi seere yi mu ci def sëriñ bi def ci ñaan ba tey ji yàlla dogal conteneur bi agsi ba sëriñ bi teg ci bëtëb alhamdulilah loolu li muy feeñal mooy nit ki foo mën a nekk dangay nangu am kilifa te ñaanu kilifa amul lu ko mën a wecce ndax moom xam na jafe-jafe yi ñu ci am yëpp waaye man de amoon naa yaqiin ne conteneur bi dana agsi ndax njalbeen gi moo tax. Mhm. loolu itam bëggoon naa euh, profité ci occasion pour wax ko di ko santaat waaye di sant kilifaam di suñu kilifa ndax euh, ñaan mooy gànnaay. Mhm. mooy gànnaayu jullit te gis nañ ne ñaan bi yàlla nangu na ko macha allah kon dañu koy sant te ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal ko fi yàlla wéral ko yàlla yokk ko macha allah ba ba ba ñëpp euh, ni muy jëriñee nit ñi mu yàgg yàgg leen jëriñ incha allah.